situation yu demee nii euh, le plus rapidement li ñu war a teg moom mooy benn cellule de crise hein avec un numéro vert euh, pour information bi mën a jàll pour ñoom ñu xam quelle conduite à loolu ci leen di aar ci la bokk loolu moom chaque fois que crise éclate rek foo xam ni rek c'est un foyer d'immigration mu am ay sénégalais lu moom waratuñ xaar sax ñu leen koy laaj il faut rapidement benn cellule de crise avec un numéro vert ça permettra ñu am ñuy localiser xam nit ñi fu ñu nekk xam yan conduite à prendre loolu c'est systématique